seytaan rajim bisimilah rahmaani rahiim la ndara ngoog dem jàmm ci ndar ñibbi si jàmm ci ndar ñu ngi tàggu Dakar dem fekki ndar bisimilahi rahmaani rahiim ñu dem ak jàmm ñëw ak jàmm yal na yàlla defal jàmm ana gaay waaw. booy foo la nekk yéen. damay a de xaaral ma dem de. Ah, na ngeen a naaje. foo la nekk. a naaje. yéen a ngi ah très bien. na a naaje. très bien très bien. très bien. Ndar rek waaw. na ngeen a naaje. kon fu ñu ci jàmm dem ci jàmm ñëw ci jàmm dem ci bismillahi rahmaani rahim ñëw ci alhamdulilah carré pour gewel bu ñu na bu leena do nga tar yow la nga yéen tuuti ñu def bàyyi leen di léegi nañ sukk nañ sukk ñu ñaan nañu taxaw nañu sukkaat nañu taxawaat awo sukku taxaw ni jaay sukku ay jami ñaan bismillah ñaan wa ah, bismillah rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani ah, arrahim maliki yawmi diin yàlla naa yóbbu yàlla yóbbu si jàmm ñëwaat si jàmm nag fekk jàmm ah, bàyyi jàmm eh, ñëw si jàmm si barke nabil Moustapha dama jàmm ñëw jàmm kon nag yéen a ko seen ndara show andar ndara ngi way ndara ngi way ndara ngi way ndara ngi way ndara ngi way ndara ngi way ndara ngi way ndara ngi ndara ngi ndara ngi ndara ngi ndara ngi ndara ngi ndara ngi ndara ngi ndara ngi ndara ngi ndara ngi ndara ngi l'avais dit. way puut puut a ngi nii puut puut puut puut puut egsi nañu puut puut la ñëw de egsi puut boo leen wàccee puut la leen da ngeen di jënd mango de ah waaye balaa ngay jënd mango lekk ba pare mais est am na mango puut loolu jar la jënti kuy wàcc puut man maay wàcc puut soo wàccee da ngay wàcc moom man déggul puut déggul leen wàcc kuy wàcc dëkk puut laa wax ma la kuy wàcc puut wax day ànd ak salaamaaleykum na ngeen def. ah Pout ah. Pout bu ndaw wala Pout bu rëy. Pout bu mag. Pout bu mag. waaw. ana Pout bu ndaw. fii Pout bu ndaw amul. Pout bu mag rek yow. waaw Pout bu mag rek. mais wàcc nañ Pout. ah léegi Pout yàlla ndax lañ. wàcc ah. Kuya, nga kayo sa ano. Kumain mo lang. Kumain mo lang. Bo. Kim anne kılıp? Kurt. neex mango neex kalamansi. baal li nga wax ah. neex mango neex kalamansi pour dañuy naxal quoi egguñ sax. egguñ sax dëkk boobu su ma dëkk la. fii mooy Pout Mali Kumba Jawri. Pout Mali Kumba Jawri. waaw Pout Mali Kumba Jawri. mooy xaal. neex kalamansi fii mooy Pout. neex mango neex kalamansi fii mooy Pout. waaw waaw neex mango neex kalamansi fii mooy Pout. waaw waaw neex mango neex kalamansi. fii mooy Pout. neex mango neex clémentine fii mooy Pout. neex mango neex clémentine fii mooy Pout. neex mango neex clémentine fii mooy Pout. neex mango neex clémentine fii mooy Pout. neex mango neex clémentine fii mooy Pout. taxaw di waxaale miss yi ah. waa ji naan sept mille ñu ne fa di waxaale di waxaale moom nag ñu yàgg koo bégal mu ne du xaar benn yoon sax ñuy waxaale mu ne jël leen li ngeen di jël maa koy fay te fii lañ ko xamee ñu koy ñaanal nag fan bu dee wér gu yaram lii moo ñu taxoon tur nag objectif bi mooy Kouthia aller vers ses fans egguñu ndar teranga bi commencé kon am nañu njort gu rafet ne ndar dana neex ndax dañoo wàcc Pout am fa Clémentine wàcc Thiès am fa yàpp te dëgg jën nañ jëm kon ku la jox yàpp boo gisee jën Cheikh Poulo Sidibé Cheikh Poulo Sidibé waaw kii mooy agence Africa Africa Salam Immobilier waaw ñu ngi koy nuyu tamit Moustapha Ndiaye Moustapha Ndiaye ñoo gërëm di la sant yow gérant bi yal na yàlla defal jàmm déwén yal nañ ko jaaraat fii te kenn bañ a manqué yàlla defal ñu ko Moustapha Ndiaye jaata Moustapha Ndiaye jaata Moustapha Ndiaye jaata Moustapha Ndiaye jaata Moustapha Ndiaye jaata Moustapha Ndiaye jaata Moustapha Ndiaye jaata teral nga ñu sama njaay teral nga ñu sama njaay teral nga ñu sama njaay teral nga ñu sama njaay teral nga ñu jakarta teral nga ñu looy teral nga ñu looy teral nga ñu teral nga ñu teral nga ñu looy teral nga ñu looy teral nga ñu ah teral nga ñu teral nga ñu sama njaay teral nga ñu teral nga ñu teral nga ñu ay teral nga ñu woo teral nga ñu feebar du gis na ko nii yow rek yaa ko mën a reeloo boo xasee ba commencé dootul noppi day ree moom rek yow gis na ko nii yow rek yaa ko mën a reeloo mi ngi yaa koy faj yaa yor garabam TFM mooy sunu Souane bañ ko amee ba tey namatuñu dara. xoolal ku ko am doo wuti leneen. sant rek. ñu ngi leen di ñaanal ku caayu da ngay gudd fan. yow xol yi ngay faj dafa bari. yow yaay suñu Souane Tour. TFM ca kanam. waaw ku caa demee Souane Tour. TFM ca kanam. jërëjëf waay jërëjëf waay waaw waaw jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf sama sa dëkk ñëw nga dëkk boo xamante ni waaw ay dàll fii la fekk baax ñëw nga dëkk boo xamante ni nii ay sër fii fekk baax fii fii nga ñëw waaw boo xoolee li fi nekk ci cordonnier kenn xam nu mu toll ku caa kaame présenté la dalu ngaay kon ñu ngi daan dëkku caamaas Gallou Ngaye yaa ngi nii. ah route ma euh, ne Kouthia ana daal lii. waaw waaw Kouthia ana daal lii. ma ne Kouthia ana daal lii. waaw waaw ana daal lii. waa place bi xam nga bu nee bu nu waxee Ngaye. waaw sama xel day dem ci Gallou Ngaye. waaw non seulement dëgër na. Mhm. garanti na. te mën nga cee dox ba Mali. dàll yi mën nga cee tax ba kon yombal xëyam dàll du dal Kouthia boo xoolee dàll yi nga xam ne xale yi ñoo mujjee judd ci quartier bi ndax xale yi ñoo mujjee judd ci quartier ay dàll yoo xam ni xale mën na koo waaye mag mën na koo sol dafa ci nag façon bi kase ay mbalaat yoo daal ngaay nga dëkk ngaay nga ñu saanoo fii Kouthia sama yaay fii la jóge ngaay gii te bu ñu ngaay sam xel day dem ci mexe ngaay jaañ moo ne ci kanam membre ci biir kon boo waxee ngaay te da ngay laal laal sama xol. borom place baa ngi nii rek. borom place baa ngi. bu baax na nga def. maa ngi sant yàlla baax salaam jàmm. baarakallaah alhamdulilah. tey nag. Euh, euh, groupe Kouthia Show. waaw te dañoo ñëwoon fii ci Ngaye. waaw war a dem Ndar. waaw ñu ne balaa noo dem Ndar. waaw dañuy ñëw ci Ngaye. waaw ko. xool dàll yi. waaw fii nga xam ne sama yaay fa la cosaanoo. Euh, tey nag dañ lay bàyyi Kouthia Kouthia borom place baa waaw kontaan nañu trop nag ci yoonu ngaay ndax dëkk boo dem am nga sa sërite hmm. bu dee piir ñàmbi la bu dee puut mango la waaye dëkk bu nekk tamit am nga sa sërite bu dee ngaay nag dàll la jaana dàll lii eh, boy eh boy eh may boy yoo yoroo xooy yoo beñe oh, ah jaana dàll moo ko jaara daal lii mooy waay daal lii moo ko jaara daal lii mooy yow daal lii moo ko jaara daal lii daal lii moo ko jaara daal lii moo ko jaara daal lii moo ko jaara daal lii moo ko jaara daal lii moo ko jaara daal lii moo ko jaara daal lii jërëjëf man maay magu sax Njaga ah Njaga Seck wax nga dëgg waaw wax nga dëgg wax nga dëgg waaw loo bokk ndey ak baay yéen a bokk ndey ak baay loo bokk suñu kër gi nii ci ginnaaw sax Njaga ñëw nañ sa grand père boo bokk ndey ak baay maa ngi nii waaw mu ngi nii taxaw bokk ndey ak baay yéen a bokk ndey ak baay suñu kër gi nee ci ginnaaw très bien très bien merci man nag léegi moom laa wax mu defar maay daal insa amul benn problème sa daal yi waaw boo ko solee boo bëggee fecc daal yi da lay fecc loo

mbay mbay salal say daal mbay salal say daal mbay. est-ce que xam ngeen sama sa dëkk teral nañu. Nana Kouthia moo fi ñëwati waxal waay waxal Kouthia ñoo fi ñëwati waxal waay waxal Amet Ñaa moo koy filmeti waxal waay waxal lay lay la tey ma waxati waxal waay waxal lay lay la tey ma waxati waxal waay waxal may bi moo koy feccati waxal waay waxal am jaara moo koy teetati ay waxal waay waxal julier balaa may waxati waxal waay waxal ay jaara waaw waaw may waxati eh, mbokk yi voici ñu ngi ndar dex baa ngi nii asalaamualeykum ndar nuyu nañu dex ji nuyu li nga xam ne mooy géej gi maam Kumba Bang ñum ngi lay nuyu say doom ak say sët ñoo la seet si yal nañu aar ak jàmm ñu dugal jàmm génn ak jàmm mënu ñoo dugg te duñu tàggu borom ndar ñaan ci ndar ñaan géej gi ak dex gi yal yàlla may jàmm kon tey mu neex tey mu neex tey tey mu neex Thiamas tey mu toj tey mu neex tey mu neex tey mu toj tey mu neex tey mu neex bonjour la population de Ndar Géej bonjour la population de Ndar Géej Ah voilà mbokki ndar nag bu ñu ñëwee nag euh, ba si fi nga xam ne mooy place Faidherbe di kaf ak suñu maam yéeg jàpp tànk yi nuyu ko loolu diggante maam ak sët la ndax xam ngeen ne Faidherbe bu ñu demee ba def ko fii nag ci place bii cër gu mag la am ci biir ndar te ñëpp a ko xam di place bu mag boo xam ne mag ñeeg gune yi place publique la ñëpp fi waxtaanee moo tax tey ñu njëkk ñëw fii ci altine bi suñu première émission ñoo xam ne nag egsi nañu ndar ñëpp xam ne wax dëgg yàlla joxante rendez-vous ak li ngeen seetaan yooyu yëpp nag mbégte ak contentement la boo xam ne gis ngeen ko depuis dakaar ba egsi ndar fii mooy place bi nga xam ne ndar koo ko laaj wax la ko ndax jëmm ji moom lañ ko tuddee moo taxit tànk ñu yëg ci tànk yi suñu maam la ah ñu tamit euh, mu nekk euh, ñu nekk ay sëtam moo tax ñu kaf di fool di ree mbokk yi remercier nañ sponsors yi nga xam ne ñoo ñu gunge dalee ko ci dolli ma dalee ko ci dolli ma euh, sivop dalee ko ci li nga xam ne moom mooy madaar noo ànd ak ñun ci yoon bi nga xam ne ak style mooy sivop yoon bi nga xam ne mooy yoonu ndar di yoonu mbégte bàyyi ñu benn sponsor ñoom ñoo ñu gunge waaye mbokk yi nag boo leen bëggee xam suba ci mardi suñu émission mardi bi fu ñu koy enregistré jàppaleen na ñu koy defee ca bato ba ca buntu bato ba population ndar na nañu invité ca buntu boto ba en direct lay doon mu nekk loo xam ne 16 heures pile ku tardé say bañ dina wadd eh mankaay kenn ku ne waa Ndar ñu leen di xaar woo nañ étudiants yëpp ñu ñëw waa Ndar ñu leen di xaar man la jaara mankaane waa Ndar salaamaaleykum man la Ndeye bi Diop waa Ndar yegg nañ kontaan nañ ñu kontaan bu baax a baax ci waa Ndar man la ña nga alhamdulilah Abdoulaye Piw ah! asalaamaaleykum waa bitim réew Ndar <laughs> ñëw naa Sénégal jël naa Sénégal dégg ngeen wala may e min eh, samba yero pullo ñownan darnak bisimillahi rahmani rahim leppay cokkor mbuut ay wallah <laughs> Bonsoir, bonsoir. Chers téléspectateurs de la télévision Futur Média, on est à Saint-Louis pour Koutia Show. Koutia Show en live, en exclusivité. <laughs> C'est Horatio. Salam alaikum. Eh Mbaye, mbokk yi dina la wax de eh, man la jàmm fii ci Ndar ak groupe Koutia Show, ça va chauffer. <laughs>

Ajara Ajara na ngeen def. alhamdulilah kontaan nañ trop. ñu ngi lay ñu ngi gërëm di la sant. macha allah comme euh, d'habitude saa yu équipe groupe Futurs Médias ñëwee. yaa leen dalal vraiment gis nañu teraanga yi ngay def. bu ci mujj récemment euh, groupe yeewu leen bu ñu ñëwee. gis nañ leen bu dul loolu sax événement da ngay jékki-jékki sa xel dem ci ñun nga yónnee ñu ay gato boo gisee ku ñëw dakaar des fois nga def sa teraanga yoo xam ne teraanga financière la dans la plus grande discrétion. xam nañu ne sa xol liggéey moo ci nekk. te xam nga ne sa référence Youssou Ndour la ndax ku ko bëgg nga moo tax it nga jàpp Groupe Futurs Médias dugalal seen biir xol ñoo dem fenaan ak lu ñëw ndar njëkk ñëw sa place nga daloo ñu jàmm kontaan nañ ci trop Habib ñu ngi lay gërëm ak tout le personnel ndax fii moom wax dëgg yàlla Sénégal yëpp seede nañu ne bu ñuy dem ndar xam nañ ne Daaru Salaam gën gaa gàtt dañ fa jaar te dañu am lu ñu seq ak ñoom ci jàmm ak teraan yal na yàlla defal jàmm yow de la personne. ñu leen di souhaiter kon bienvenue. merci seen fii seen kër la. merci comme ni ñu ko waxee ñun tam si maaxu yàlla ak yërmaneem. Mm-hmm. Youssou Ndour ça fait des années bu ñëwee fii Ndar danañu recevoir ñu toog ay at la. ñu wax ko ne ko sa njaboot tam bés bu mu ñëwee Ndar. Mm-hmm. ñu ngi leen ñaan ñu jubal si fii ñun tam danañ ci def luñ ci mën. ci kàttanu yàlla donc ñu ngi leen def naka kii gars yi. jërëjëf la ñu toj ay kaas. may xarit dëkkandoo bilaay fu ma juddoo màggi fël laa bëgg a delloo njukkal ñoom yaay mag am di jàmm yéena moom lii màggal Sakku Njaay bisu benn ak ñaari tali Kastar am na buñ ko waxul am na achalem yaa nga ca kanam sa réew bay géy neen nim saat fat ndooy ndam laa ngi bilaay doomu ndeyu cité port bopp ak waa gu ñaay usine benn ak ñaari daleen kon HLM ma ko yor HLM yaa nga ca kanam HLM ma ko yor HLM yaa nga ca kanam xelem ku fa yendu rek faw nga fa ku weddi di laajal ku caasamba siin tiijaan xam nga li ma wax kon HLM ma ko yor HLM yaa ca kanam yaa nga ca ragal a péete nag dafay xañ a wërsëg man xam ndalloo maa nga ca biir